nee ma ni ah kii def ma di digal ni ma del solo waaye mantam tam danaa solo ba ba jommal ko nee na ma ma wóolu alaaji Umar Siise Piir mu ñëw fekk ma ndar nee na boobu junni rek faj na aajoy dëkk waxatuma rek benn junni nee ma jox ko quinze mille francs ma ni ko yow ku nga taalibe Maodo yi yaa ci gën a civilisé wax na dëgg xam nga alaaji ma si ko mënoon sañse la dafa wàcc ndar sañse sol yére baraaye yi taalibe yaa ngi ko dar ngi nekk ci digg taalibe di tàggu nag noonu mel benn doomu ndar sëpp sa kaw séen ko daal ni laay laay yaay génnal Papa Cheikh Tidiane Serigne fa nga <laughs> yaa ji it génn seen ko ñu ngi ko tënk mu ko marxaba ay dara moo de bi amal si sa ñëwee nag mu jox ko quinze mille francs ni ko demal Dakar nga jëndal mu ko yëpp yére yu rafet ndax man awma jotu dem léegi Dakar te Maodo nee na ma del sañ si dama rivin san nga jëndal ma lépp yére baraay amal si sa jënd ko muy fanweeri waxande ما يفتليكو مو مايما بن جيلي براي بو رافيت سيني بابكر مايمكو اوبي ارمولم جوخمك نيتي مورسو لا وون مو جيل ñaar يا مايكو سيني منصور جيلي بي امول لوخو مو مايمكو ماني مكي داف ما اوب من اه دا مالا ماي رك داني غيس complet bii keroog bii muy tudd Moustapha moom laa sol sëñ Moustapha kon bu mu juddee bi ñu koy tudd mu ni complet bi laa soloon euh, mu nekk ndar di sañse rek nag nee na bébés nag mu ñëw di seet si Seydil Hadji Maay ne maa ngi sañse maa ngi sol mbubbu bu basin bu saf gom ne Maodo nag di ma tooñ ne bi ma dugg see rek mu ne ma moo ñoo àndal ma ni ko man rek ma ànd muy riir mi dafa metti di booba moo ko ibnul arabi li ibnul arabi li bu Cees rakku Cheikh Zunnuuni ci tariqatul qaadiri la bokkoon waaye nii lañu meloon ñoo daan niroo yére di bokk benn lal ibnul arab ni ma niñ daan liggéeye maak moom man su ma juleegee damay jël sama kurus def li may def ci yàlla ba trois heures ma tëdd Sëriñ Babacar moom day tëdd bu juleegee reer tuuti tëdd ba trois heures mu jóg ba biir set Ibnul Arab ni ma benn bés nag maa ngi toog ci digg la néeg bi yore sama kurus moom mi ngi tëdd ci lal bi di nelaw ne Bayasir mu jékki-jékki rek mel na dañ ko fetal ne dafa tëbe ci kaw lal bi ba laal plafond bi daanu ci digg néeg bi sedd guy Ibnul Arab ne ba di ko bës di ko bës di ko wow mu tëmu wuyu ma di ko bës di ko wax Babacar Babacar waxul dara ne ba sama xel nekk ci dem woyu soxna Roqoy Njaay ne mu dóor a mel ne ku xiqi nag xool li ma im yàlla tey asmaul xusna wan na ma seeni suwar seen image jox na ma ca benn ni ma mooy sa sirru baas yi yàlla ko ni ko im yàlla tey asmaul xusna wan na ma seeni image jox na ma ca benn ni ma mooy sa sir mooy baasitu nee na bés nag ñu ànd ñu ngi ñu ngi sañse ñu ñaar di dox nii ci yoor yoor mu ne amoon na benn góor nag bu yàlla baaxe woon ci ndar du ma tudd turam nee na ñu dem ba di ko romb ma nee nañ jàdd nuyu góor gi mu ni góor gi dafa riisoon ba baraag bi mu dëkk dafa commandoon bois bi France ñoo ko ko defal noonu rek defal ko ko ci ay kees ñëw dañ ko dañ ko monter rek monter yépp nee bu xëyee nag dañ koy tegal piliyaan ci bunt bi nit ñi wër ko ñi bëgg dara di yalwaan ne bi ñu ko nuyoo nag ñu ne ko kii doomu Seydi Hadji Malick kii rakku Cheikh Zunnuuni la nee mu fël suñu loxo waaye yéen yéen nekk fii di sañse demu leen jàngi